dégg nga affaire yi koor ñi dellu ci wiyaar rek dégg nga mu ne wa innamal kafaara ala man dara di war koo xam ne aftara dagg na mu mutaamidan di aji tay fi aklin ci lekk aw surbin wala naan aw jimaayin wala booloo maal xaday ànd ak fay kafaara ki muy war mm-hmm. mooy ki nga xam ne dafa dagg te moo ko tey mm-hmm. te benn lor itam ko ci dagg googu mm-hmm. moo xam lekk la def wala naan la def wala booloo la def su ko defee nag kafaara nag buñ demee bay ko warale nit kafaara gi luñ ko yaree la waaye jotewu da fay fan bi dara jotewu da fay fan bi dara dana fay fan bi waaw ah, suñ naan na def nangam muy kafaaram mm-hmm. na def nangam muy kafaaram mm-hmm. nangam nangam yooyu ñu tuddee kafaara mm-hmm. nekkul ne mooy fay fan bi fan bi moom ci sayru sëriñaati beneen fan rek moo koy fay fan bi nag ci maana mën a toogoo fan ci wàllu maana moom mën a toogoo dafa ñëw ci hadis mu ne nit bu daggee ci bëccëgu weeru koor benn fan te moo ko tayi te duut benn ngant moo ko ci hen su doon xoor xat mi itam manatu mm-hmm. dafay fanam boobale selon mm-hmm. ni mu ko waxee de mm-hmm. nit bu daggee ci bëccëgu weeru koor benn fan moo ko tey ci dul benn ngànt su doon xoor xat mi itam xoor xat mi man dafay bis ba selon bu baax baax man dafay bis ba loolu ku ko def ñàkk na lu mu dul amati mukk parce que tey bis bu ñu la waxee xoor ko fajar xar nga xoor ko ba jant bi so mm-hmm. day doon topp bu sell goo xam ne raxu la ci genn mooy yàlla mm-hmm. raxu la ci genn tooñ mm-hmm. ndax niñ la ko waxee rek noonu nga ko defee su fekkee fajar dafa xar nga jàpp rek yaag moom yaag moom bu fañ santaane dagg nga dagg kon topp gi noonu lay defee noonu lay demee su fekkee da ngaa war waxtu wii nag nga yokkat ci koor gi dagg te yaa ko tey mbir moom xas nga ci dugal mooy yàlla xas nga ci dugal tooñ fi mu ne soo doon soo doon waxaat mi itam mm. topp gu ànd mooy yàlla la rek mm. topp gu ànd tooñ la rek mm. seetal nañ loolu nag sa diggante ak sa borom topp gu ne benn mooy yàlla amu ci benn tooñ amu ci ak topp gu xam ne raxee nañ ko mooy yàlla raxee nañ ko tooñ lu ci gën a wóor ci gën a wóor xam xam nga lu ci gën a wóor moo tax yonent bi lépp lu mu la wax rek mm-hmm. bu fekkee settantal nga ko rek ba dégg ko mm-hmm. da nga xam nii rek la mbir mën a dem waaw mu ne bëccëgu weeru koor soo ci daggee ci benn ngant yaa ko tayyi soo doon waraat mi itam du tax nga mën a fay fan ba loola nga def xañ na la loo xam ne mënatoo ko am xañ na la loo xam ne mënatoo ko am ndax noonu la demee fajar bu xaree nga jàpp hmm. ya ngi moom ba jant bi nga dagg hmm. dafay doon takk boo xam ne raxee wala ko benn mooy yàlla hmm. dugaloo ci benn tooy su fekkee fajar dafa xar nga jàpp dikk bu waxtu yi nga bañ ne doo xoorati nga dagg nag boo réccoo nga ne fa ngay xooraat mi léppin nag fi mu ne mbiroom xam nga ci mooy yàlla loolu bokkul ak loo xam ne tooj na ko bokkul dëgg-dëgg wa innamal kafaaratu xamal déet kafaara ala man dara di war koo xam ne aftara dagg na mu mutaamidan di aji tey mm-hmm. bi akalin ci lekk aw surbin wala naan aw jimaayin wala booloo mm-hmm. maal qadaa ànd ak fay mm-hmm. wal kafaaratu kafaara fi dalika ci loolu xeeti dagg yi ñu wax ni yëm nag soo amee ba ni dëkk kafaara li mu war a def idaamu sittiin mooy laal juróom benn fukk miskinan ci miskiin li kulli miskiin ñaar ne miskiin muddun mudd bi muddin nabi ci muddam yonente bi sallallahu alayhi wa mooy da ngay laal benn fukki miskiin miskiin bu nekk ak am muddu ci muddam yonente bi sallallahu alayhi wa mooy benn pot ci pot yooyu ñuy génne muuram koor kadalika kafara yin woowu ahabbu moo gën a soppu mm-hmm. ilay naa ko ñun mbooloo ma ko jóg Malik mm-hmm. mu ne ñoom Malikiya mm-hmm. donte kafaratu siyaam ay xeet la donte dañ laa tànn loo bu la ci neex nga def itam ñoom bi leen gënal daal mooy nga kafaara laaj juróom-benn fukki miskin li ko def boo ko defee day doon jaamu goo xam ne juróom-benn fukki jëmm dañ ci jëriñu te jaamu gu la gën a yaatu njëriñ ci biir jaam ñi rek loolu moo tax ñu ne kon bu ñuy tànnaloo man mm-hmm. nga def lii mën nga def lii itam mm-hmm. bi gën a yaatu njëriñ ci nit ñi mm-hmm. boobu moo ci gën wala woo dagan na ñaal ko ayu kaffira ba mu kafaraaye bee karakabatin ci goreel jaam mm. su ko neexee it mu kafaara goreel jaam moom itam kafaara gu baax la mm. donte lelee ku gën mm. ndax lelee ku gën a yaatu njëriñ moom njëriñam ci kenn layam waaye njëriñ lu rëy la nag loo xam ku ko defal ne kenn mënatul la jiitu ci njëriñ loola kenn mënatul la jaa toppati ah nit ki yow yaa ko génne ci suufeeg ñii ko moomale kurul yàlla yóbbu ko ci tranga yàlla rek lañ koy moomale gis nga ko aw siyam shahrayni walla xoor ñaari weer mutataabi'ayni ñu doy toflanto man nag kafaara itam xoor ñaari weer yu toflanto boobu nag ñaari yooyu ko gën ndax njëriñal kenn nekku ci bugal sa bopp saa yu la njëriñal kenn nekku ci yow sa xoor ñaari weer yow njëriñal kenn nekku ci bugal sa bopp rekk la dafa am ku ñëw Yahya ibnu Yahya kenn la ci kilifaayu mazhab mm-hmm. dafa am buur bu mu jamono antee toon mm-hmm. buur bi toog ba bëccëg mm-hmm. mu dal daal jeebeeram ci bëccëgu weeru koor bi bi mu defee loolu xoo borom xam-xam yi laaj leen ñu tudd ko ñetti xeeti kafaara yi laa juróom benn fukki miskiin wala goreel jaam wala xoor ñaari weer bi mu àgsee ci Yaxya ibnu Yaxya Yahya ibnu Yahya mhm. ko yow da war a xool ñaari weer li nga def loolu nga war a def waxu ko yeneen yi mu ne ko yow ñi nga bokkal liggéey ñu ne ay boromi xam-xam lañ comme yow mhm. dama leen woo ñu tudduma ñetti mbir mhm. wax ma ne lu ci nekk mën na kafaara yow ma ñëw yow nga ñëw ma laaj la nga ràññal koor rek lu waral loolu mu ne ko kafaara bu ko borom sorian bi tëral pour jàjji nit ki la yow na koor képp moo la mën a jaay waaw su la neexee fi koor wi dee bi bu nga def li nga def nii goreel jaam doo ko yëg mbaa nga def li nga def nii xaw jom benn fukki nit laa lente doo ko yëg koor nag moom boo ko defee li ci baatu la yëg dee loolu nga ji yëg moo la mën a jaaj koor nga war a kafaara dina bu baax a baax loolu la Yaxya ibnu Yaxya waxoon buur ba mu jamono ante bi moom baase wut ci loolu yaayam na yaayaa wax na ne mm-hmm. kafaara war nay jàjji ni mm-hmm. loolu ñun ñëpp xam nañ ko mm-hmm. waaye ndax loolu rek la ci borom sëriñ bi soxlaal leen est-ce que wóor na ko ndax loolu rek lañ ci soxlaal leen ndax wóor na ko wóoru ko loolu moo tax wóoru ko waaw ah, xam na ne kafaara war nay jëriñ jàjji ni waaye ndax nag jàjji ni rek lañ ci soxlaal leen ko wóoru ko waaw ah, dañu nekk dégg nga wala woo dagal na ñaar ko ayu kaffira ba mu kaafaraaya e benn xara xabatin ci goreel jaam mm-hmm. aw siyam soray ni wala ci war ñaari weer mm-hmm. mu tataabi ay ni ñu doy toblantoo wala san la man déddi war ko xam ne mm-hmm. aftara dagg mu fi qadaay ramadaan ci fay weeru koor mu taammidan mu daaji tey kafaaratun kafaara nit su xamee bor ci weeru koor da Mm-hmm. dem ba ca kanam ci fay gi mu yokkat dagg ci lu benn ngant mm-hmm. lu sañee nag kafaara mm-hmm. kafaara xormay weeru koor la waaye lu koor gee tax gannaaw tollu wuñ ci weer wi nag duñ ko santaane te yow soo amoon fan ci weeru kooru daaw toog waxtu yi nga def ko fay nga war waxtu yi nga dagg kon it du tañi kafaara loola ndax nekkatuñ ca weer wa li am wuute kay ndax war ngay fay ñaari fanam déet ndax fan bi nga tàmbali ne te dagg war nga koy fay te fan bala waroon ci weeru koor it wàccegul la wala boo fayee benn fan dana doy comme lu wuute waaye ku ne xam ne doo kafaara dégg nga ko man omiya ku xamalees na ale yi ci moom laylan ci guddi faafaaxa mu ximmaleeku baada tuluwayel fajri ci gannaaw xaru fajar baada isaal war ko xadaw sawmi fay koor ga nin moom dafa xamoon ci guddi bi fajar de xar fekkut mu ànd ak sagoom gannaaw gi ximmaleku na waaye lu mën a xew fajar moom bi muy xar fekkul mu ànd ak sagoom ku war a fay moo xam ne lépp ci bis bi ànd na ko sago mm-hmm. waaye njël beneen bi su fekkee wu ko sago mm-hmm. war nay fay mm-hmm. kon na boo xamee lépp ci bis bi àndu ko sago wala yaqdi du mu fay mina salawaati ci julli yi illa ma dara lu xam ne afaaka ximmaleku na fi waxtihi ci waxtum nit su xamee mm-hmm. diir bi mu xam julli mm-hmm. gu fi jaar mm-hmm. ba muxtaaram ak daroori yu julli ko kenn du ko ko fayloo nit su xamoon ci waxtu wii ñu dem ba dix ci guddi mu doog a ximmaleku kenn du ko fayloo tisbaar ak takkusaan tamit ki mu toll ci daroori ak gaye ki mu ci muxtaaram moom lay julli bu wayam baxi def na soppu mm-hmm. wala dana war la wute moo ci am mm-hmm. li sayi mi ñaal aji xoor mm-hmm. an yaxfada ba mu wattu hat lisaanahu làmmeñam wa jawaarihahu ak i cëram nit ki bu xooree dafa war ci moom mu wattu làmmeñam ci lépp loo xam ne waxi bàkkaat la dafa war ci moom mu wattu ay cëram ci lépp loo xam ne jëfi bàkkaat la lool bu xooree bu war mhm. waaye bu xooree nag dañoo gën a feddali war gi mhm. ndax ni weeru koor demee mhm. ak ni koor demee wala wa yambaxi def na sopp li sawimi ñaal aji xoor an yax fada ba mu wattu xar lisaanahu làmmeñam wa jawaarihu ak i cëram ba xoor dañoo bëgg muy ci wax ju amul wattu ay cëram ci hmm. wax ju amul njëriñ hmm. donte du waxi bak ci jëf ju amul njëriñ hmm. donte du wax bàkkaat donte du jëfi bàkkaat ndax am waxtu wu ne loolu lañ soxla ci nit nit waxtu bu nekk dañoo bëgg nañ soxla lu am njëriñ waaye suñ demee ba weeru koor nag dañoo gën a feddali soxla gi ndax ni weer wi demee ak ni koor demee ji nga weeru koor temps boo ci sànni rek wàcc nga loo xam ne mënoon nga ji deferoo temps boo ci sànni rek ni ni barke weer wi demee temps temps boo ci sànni rek wàcc nga loo xam ne mënoon nga koo deferoo mënoon nga jee deferoo ni mu demee noonu moo tax la xaaye bu baax ne bu dikkee bu ci soxla loo amul njëriñ te itam koor ci boppam du ñàkk a ak ñàkk a naan waaye dafa laaj cër bu nekk ñi fekk ko ci lu dul noona waaw loolu loolu la laaj mm-hmm. asawmu mm-hmm. an yasuuma mm-hmm. kullu odwi an kulli ma yubdi fatan li sawi suñ waxee koor mooy cër bu nekk dañ koy fekk ci noona waaye da ngaa woor te la neex nga wax wala da ngaa woor te foog ne lu la neex nga xool wala da ngaa woor te foog ne lu la neex nga déglu dëgg daal li am baam mooy lekkoo naanoo waaye moom defoo ko kon xiif ak mar rek nga jajjëlee rek idaa lam yakun fi sam'i minni tasawunun wa fi basari gaddun wa fi mantiqi samtu fa hadi idan min sawmi al-jawma wa tama wa in qultu inni sumtu yawman fa ma sumtu nan la demee rek dégg nga wa yambagi dem na sopp wala dana war li saayimi ñaal aji hoor ay yaxfada ba mu wattuwaat lisaanahu làmmeñam wa jawaarihahu ak i cëram bu yoncima ak mu màggal hmm. min so ramadana ci weeru koor hmm. maa li nga xam ne xadama màggal na ko allahu yàlla hmm. ak itam mu màggal weeru koor ndax weer la wu yàlla màggal màggal ko màggal moo tax mu tànn ko muy weer wi nga xam ne ci la wàcce alquran ci lawhul mahfuz andi ko ci asamaawu duniya mm-hmm. mu de wàcc par morso mm-hmm. da ñëw ci yonente bi mm-hmm. ci diiru ñaar fukki at ak ñett door a àgg weer woowu nag ni nga koy màggalee mooy nga di ci bëri jaamu yàlla bu baax a baax a baax waaw bëri ci julli bëri ci jàng alquran bëri ci ñaan bëri ci jéggulu bañ yi ñuy bañ a nekk ko soxloo ci lu am di soxloo lu amul njëriñ dégg nga dina ko baax waaye su fekkee da ngay fanaane lekk de yendoo nelaw rek daa bëri loo tarde de dana bëri loo tarde de a wajtana boo fiihi kasira nawmi mm. li annahu yanqusu ajra sawmi waaw te bu yëpp da nga koy nelaw mooy du noonu daf lay fettal si yàbu ju bëri wajtana boo fiihi kasira nawmi mm. li annahu yanqusu ajra sawmi xam nañ ko de wax nañ ko de wala yaqrubu du jegeñ mm-hmm. asaimu aji woor mm-hmm. ma azama allahu subhanahu wa mm-hmm. yuazima ak mu màggal min sohri ramadana ci weeru koor maa li nga xam ne azama màggal na ko allahu yàlla subhanahu ma sellam wala yaqrubu du jegeñ asaimu aji woor annisaa jigéen bi wadin ci wala basaratin du càggeen jonjo wala xublatin du càggeen foon li lazzati ngir bànneex mm-hmm. nahaar ramadan ci weeru koor bëccëgu weeru koor mm-hmm. nit su xooree bëccëgu koor gi mm-hmm. warul jege ante jigéen ci genn haram bum bil jima bum bi ihdal muqaddimati wala yaqrubu du jegeñ asaimu aji hoor annisaa jigéen bi wadin ci wala mubasaratin du caageen jonjo wala xublatin du caageen foon li laddati ngir bànneex fi naa ramadan ci bëccëg weeru koor wala yaxrumu du haram saalika loolu nag te mooy jege googu alayhi ci moom fii laylihi ci guddi weeru koor bu ci guddi gën a wala baasa dagat na an yusbiha ba mu xëyat junuban daaji janaabahu minal wat yi tukkee ci laal nit mën naa janaaba wu ca guddi mm-hmm. balaa mën a sangu fekk fajar xar mm-hmm. te du teemu mën a xoor bis bi mm-hmm. donte janaaba ji ci booro la fa xeeboo xam ne du yëfi gént kon it manu na ndax li ma la waxoon démb rek janaaba borom sangoogu toj moo fa nekk rek te toj jotewul ak koor dara julli la jote fa ma ni sadda ku bànneexu na mu ñu jàngee masala bi dañuy bàyyi day rëy ci benn bind waman istabda ku bànneexu na mu fii nahaar ramadana ci bëccëgu weeru koor ci mubasaratin ci jonjaaw xublatin walla foon fa am za topp mu masu li dalika ngir loolu fa nga lee saal war ko alqadaaw fay wayin taamada bu tayee dalika bànneexu googu nag hatta am naa ba ma nii fekk ko ci fa nga lee saal war ko alkafaratu kafara nit su wooree mm-hmm. jege hartig jigéen ci anam gum mm-hmm. ba mas yu génn ci moom mm-hmm. war naa fay bis ba su fekkee topp na ko mën yu génn ci moom war nay kafaara noonu daal la demee su ko defee dama la wax ne la weeru koor ay temps lu ci nit ki sànni rek dafay doone wàcc na lu mënoon a deferoo ndég ni barke bi demee ci weer wi su ko defee pour dimbale nit ki nag ba nga xam ne temps yooyu du ñu ko rëcc mm. moo tax ñu tëralal ko ñaari mbir mm. nit bëri na lu mu yàqule mm. seytaane moo ko yàqal seytaane bëri na fu mu nit awoon nafsi la bëri na lu mu man ci nit awoon nafsi ca la ko jaaree gis nga bu baax a baax su ko defee weer bu ñëwee dañuy damm dañuy jéng seytaane du xamati ci yow yoon mu def hawa hawa nag xiif moo koy néewal doole inna seytaana la yajri min ibni aadama majra dammi fa dayiqoo majaariyahu majaariyahu bil joo mu ne seytaane su deret di jaar nit rek mën na faa jaar nit su ngeen bëggee yoonam di xat ci yéen da leen xiif léeg-léeg loolu moo tax ñu sant leb koor mm. su ko defee mu doole hawa mm. seytaane moom jëngal nañ la ko mm. hawa wan nañ la fooy jaar ba mu doole diiru bëccëg bi yëpp nga xoor suñu àggee ci guddi julli day jubal nit inna salata tanha anil fahsaa'i wal munkar ñu ne la kon julli gi guddi gi na nga ci julli loolu moo tax weer wi sahru siyaam la waaye sahru qiyaam la itam nag weeru koor la waaye weeru naafila la gannaaw jàng nañ la siyaam ba pare nag ci la ñu sas affaire naafila ci la buntu bi jeexee insha allah ama ni tarda ku bànnee xoonamu fi nahaari ramadaan ci bëccëgu weeru koor mubasaratin ci jonja aw xublatin walla boon ba am daa topp masili dalika ngir loolu faale sa war ko alqada wa fay wa in taamada bu tayee dalika bànneexu boobu hatta am naa wax mën ni ñu fekk ko ci kooku faale yi aji sax la war ko alkafaratu kafara siyaam jàng nañ ko liñ ci doon jàng bam xàgg dama la wax ne la sahru siyaam waaye sahru xiyaam la itam nag weeru koor weeru koor la waaye weeru naafila la kon ñu jàngal la affaire naafila dégg nga mm. mu ne waman qaama ku naafila na mu ramadana weeru koor mm. imaanan ngir dëggal yool biñ ci dale mm-hmm. waxti saaban ak ngir sàkku tiyaabo xufira mm. jéggale la ko ñaal ko ma taqaddama la jiitu woon min dambihi ci bakkaaram ñetti téeméeri xada fu fekk benn mu ne nit su naafila weeru koor ndeg rek gëm liñ ci wax ndég sàkku tiyaa booy def lu baax sama borom dana ko jéggal bépp bàkkaar bu mu mosoon am man xaama ku naafila na mu ramadana weeru koor imaanan ngir dëggal yool biñ ci dale waxti saaban ak ngir sàkku tiyaabo xufira jéggaleef la hoo ñaal ko ma taqaddama la jiitu woon min zambihi ci bàkkaaram naafila weeru koor dafay far bàkkaar yi jiitu woon yépp sarakat bi mu ne bàkkaar yu ndaw yi moo tax ñii wax waaye bakkaar yu mag yi taxul ñii wax waaye li am ba am daal moo di ne tàng masala gi moom du ko jar ah bakkaar yëpp lañ wax rek dégg nga comme dañ ne day far bakkaar daal nañ far bakkaar rek nañ ne day far bakkaar rek li tax ñoom ñii ko wax mooy li ñëw ci hadis mu ne alkabairu la tukaffiruha illa tawbatu awafullah ñu ne bakkaar bu mag kenn ci ñaari yëf rek moo ko mën a far borom tuub ko wala sama borom faral ko boppam mm. te loolu nag lenn ci bokkul ak salaatu tarawih mm. kon bu ñu ne salaatu tarawih day far bakaat mm. bàkkaar yu ndaw yi lañ ci jublu ñoom bu ñuy wax loolu loolu moo tax ñu bu ñu naan bàkkaar yu ndaw yi loolu moo tax ñu ko wax dégg waaye salaatu tarawih bu dul taw man na nekk sabab ci anfulla te la mën na far kabira te ñun ñëpp jàng nañ ci balaaxa ne fin dañ ko wéet ci sababam comme mbir mi na yaatu nag luñ ciy xatal kooku daal aajo na seetaat daal kooku daal aajo na seetaat daal dégg nga waaw borom masala yi tàng yi man su may ànd ak ñoom affaire tàng masala man d'accord ma ci dara dégg nga nit ñi boo leen di jàngal dina dang leen a wan baax ak yàlla fàggul leen bëgg yàlla su ko defee ñaatan ci yàlla waaye nekk bi di leen lakk ci lu dul dara loolu man mm. d'accord ma mm. ci dara loolu man d'accord ma ci dara dégg nga ma doo man xaama ku naafila ne mu ramadaana weeru koor hmm. imaanan ngir dëggal yoon biñ ci hmm. ak ngir sàkku tiyaabo hmm. xufira jéggaleef la woo ñaal ko ma taqaddama la jiitu woon min dambihi ci bakkaaram wayin kumta boo naafila fii ci weeru koor bi ma ci lu xam ne tayassara jàppandi na la fa dalika loolu marjiwun lu ñu yaakaar la fadluhu ngëneelam wa takfiru dunubi ak pare bakkaari bi ci moom suñu waxee naafila weeru koor nag hmm. waxuñ ne da ngay naafila guddi gi yëpp hmm. wala da ngay naafila genn wàlli guddi gi hmm. wala da ngay naafila sulusu guddi gi soo naafila kem li nga man te yàlla rek a kon itam li ñu yaakaar ci weeru koor dañ la ko yaakaaral dégg nga alima an sayakoonu minkum marda sama borom na ne dana di am jiyéen ñu tawat ñoo xam ne yamuñ yenn taxawaay yi wa axaruuna yadribuuna fi lardi yabtaxuuna min fadlillah xam na ne am na ci yéen ñoo xam ne ay métier lañ xam da cee liggéey di ko di ko toppatoo da cee dëgg di dund dundin wu diina gërëm dundin wu gor gërëm wa axaruuna fi sabilillah am na ci yéen ñoo xam ne dañoo hendu ci jihaad hendoo coono ñàkk a nelaw guddi nag nit mënu ko wane faqra'u ma tayassara minhu dégg faqra'u ma tayassara min al-Qur'an loolu lañ jàng loolu la ca teg subaana boo defee li nga man kon itam def nga luñ la mën a yaakaarale yërmande yàlla dégg nga sama borom ma may yow kenn mënu ko koo jox mais lu gën a tuuti li ngay def mën na ci yërëm nit loolu moo tax li may yow moom kenn mënu ko koo jox waaye lu gën a tuuti yow li ngay def mën na ci yërëm nit la moo tax wayin xomta boo naafila fii ci weeru koor bi ma ci lu xam ne tayassara jàppandi na mu kadalika loolu marjuhun lu ñu yaakaar la fadluhu ngëneelam wa takfiru dunubi ak pare bàkkaar yi fii ci moom wal qiyam naafila fii ci weeru koor fii masajidi jamaat nekk na ci jàkkaay mbooloo yi bi imaamin ànd ak hilimaan mu ne naafila weeru koor nag dañ koy defee ci jàkka def mbooloo ànd ak hilimaan muy ko jiite jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu xamu doon jamono Abu Bakrin loolu xamu doon jamono Seydina Omar ci la loolu xew yonent bi génn ci jàkkaam bokk ak nit ñi def naafila su fekkee def na ko benn yoon la ko def wala ñaari yoon wala ñetti yoon waaye lu ëpp ñetti yoon moom defu ko ko mukk moom ndax lan bañ rek tàmbali ko ñu farataal ko ci xeet yi mm. mu diis ci ñoom mm. ba duñ ko mën a sottal mm. waaye ci xilaafa Seydina Omar nag ci la Seydina na santaane ne guddi gu jotati ci weeru koor nañuy dem ci jàkka yi ñii ci def salaatu tarawiya mu ko tegit mooy ci jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa ndax dañ ne ko mm-hmm. yonent bi nee na mm-hmm. guddi weeru koor gu jot mm-hmm. sama borom day xebal ay malaaka yërmande ñuy dem ci jaamookaay jullit ñi malaaka yooyu ku laalanteeg ñoom dana texe te loolu texe aadi bu mukk mu ne ci jaamookaay yi la ñooy def nañ la dem ci ñoom ci barab boobu da ca jaamu yàlla da mën naa am ñu am laalanteeg ñoom loolu mooy cosaan wa fiihi qad salla nabiyul marhama qiyaamahu bi laylatayni faalama mu ne masjidu rasuli yonent bi def na ci qiyaamu ramadan kem ñaari yoon wa fihi qad salla nabiyul marhama qiyaamahu bi laylatayni faalama aw bi salatin wala ñetti yoon summa lam yaxruj lahu xafiyata an yufrada anhum fi'luhu gannaaw bi la ko ba ndeg bañ ñi farataal ko ci xeet yi summa kaana al-jamu fi ahdi Omar lima wa'ahu min aliyin min xabar min annahu tanzilu amlaakun kiram bi ramadana kulla aamin lil qiyam faman lahum qad massa aw massuhu yas'adu wa shiqwatu la ta'ruhu noonu la demee rek dégg nga noonu la demee dégg nga moo tax mu ne wal qiyaamu naafila fii ci weeru koor fi masajidil jamaati nekk na ci jàkkaay mbooloo yi bi imaamin ànd ak limaan wa man saa ku mu soob qaama mu naafila fi baytihi ci wala neexoon nit nag nga def ko defee ci sa néeg woom loolu sax ahsanu a rafet liman ñaal ko xam ne ana kan mu am alfawaakihu dawaani am na bi ah indil ma ah ah kooku indi na ko de waaw Aliou la joor yi ko wax moom man foofu laa ko gisee woon dégg nga waaye nee na kee indi na ku ci bëgg a bind mën na ko bind foofu wa man saa ku mu so xaama mu naafila fi baytihi ci néegam wa huwa lool fa axsanu moo gën a rafet li man ñaar koo xam ne xawiyat dëgër na niyatoo yéeneem wax dëgg mbir moom mu daa ji wéet ne bu la neexee nga defee ko sa néeg gannaaw sax sa néeg mm. du tee mu dunde ca jàkka ja mm. te sa cawartande xaal gën a ci boo defee yow kenn mm. li ngay def moo ëpp la mbooloo ma def kon nga defee ko sa néeg sax moo gën waaye su fekkee soo ko defee sa néeg moog la def ñooy yem kon nga defee ko ca mbooloo ma ndax nga bokk ci ñiy dundal bi wala saabu boo ko defee sa néeg la mbooloo may def moo ëpp kon itam defee ko ca mbooloo ma moo gën wakaana nekkoon na mm-hmm. asalafu way jiitu yi mm-hmm. asalihu ñele way hiw mm-hmm. yaqoomoona daan naafila fiihi ci weeru koor fil ci jàkka yi pensrina ci ñaar fukk rakaatan ci rak suma yuutiruna topp ñu witaree bi salatin ñetti rak wayaftiloona daan nañu xaajale bayna soxna ci diggante safa wal witri ak witar bi salaamin ci sëlmal mu ne bu jàkk niñ ko daan defee mun naa fi la weeru ci jàkka yi ñaar fukki rakk lay dox ñaar rakk yi ñu am sëlmal suñ paree def ñaar rakkaay safa ak benn bu witar mu nekk ñaar fukki rakk ak ñett su ko defee mu ne ñoom ni daan jullee itam buñ jullee ñaar rakkaay safa ba taaya mm. dañuy sëlmal mm. ñu door a julli rakka witar mm-hmm. mu ne salaf saalih noonu lañ ko daan defee mm-hmm. ma sallaw topp ñu julli mm-hmm. banda dalika ci gannaaw loolu ci tan juróom benn wa salatina ak fanweer rakaatan ci rakk xayra safa yu dul safa wal witre ak witar mu ne e gannaaw lool ci jamonoy e Omar ibn Abdul Aziz mm. naafila weeru mm. koor xàggale nañ ko ci fanweeri rak mm. ak juróom benn yu bokkul ak saba ak witar kon fanweeri rak ak juróom ñeent xàggale nañ ko ci ci xilaafa ak Omar ibn Abdul Aziz fekk lañ daan jàng ci ñaar fukki rakk yi moom la ñooy jàng ci fanweeri rakk yi ak juróom dañoo gën a gàttal taxawaay yi mm. gën a bari rukon yeeg su jóodi rek mm. waaye yokkuñ ca lañ daan jàng dara xëy na boo demee bay naafila guddi nag ndax nga def taxawaay yu yi ak sujjóot yi du bari mooy gën ndax noonu la yonent bi doon jullee daan na taxaw bàyyi tànkam di néew wala déedéet kay nga de gàttal njàng yi ak sujjóot yi du bari li gën ndax yonent bi wax ne yow doo sujjóot benn sujjóot lu dul ne dañ la ca bindal dañ la ca faral la bàkkaar dañ mm. la ci yëkkati la daraja mm. mu ne nit du sujootal yàlla benn sujoot mm. lu dul ne dana ca am ñett yooyu kon kasratu sajadaat li muy tegtale mooy bëri xiw rek te xiw rek ngay wut kon ke affaire bi nu mu gën a bëri rek noonu la gëne lu ci nekk wax la dégg nga benn at mu ne mu ne affaire bi jamono moo ko jàngale da nga fekk ku am man man kawe torop mu daane ko mm-hmm. nga fekk ku néew solo torop mm-hmm. mu yëkkati ko mm-hmm. mu ne loolu dañ ciy xamee ne kasratu moo gën toolul xiyaam yi dafa mel ni benn mufti buy leeral masala rek mu ne jamono ci ni muy doxalee ci nit ñi daanaka loolu la rek waaw ne ka am na dëra fii xabdil aali wa fii rafin asafilati li ami daanaka moom faqihun saha fii fatwahu qawlun bi tafdili sujudi ala alqiyami daa mel ni benn mufti daal muy wane ne kasratu sujudi moo gën tolul qiyam loolu muy gis bi tam dégg moo tax ne mu kullu dalika képp ci yooyu nga def kasratu sujudi njàng mi gàtt wala nga def tolul qiyami Mm. taxawaay yi yàgg mm. donte sa jadaal yi du bëri mm. yëpp waa si moom aji def rek tegee na ci sunna wa yusallimu dana musalmal nag min kulli rakaatayn ci bépp ñaar rakk su ko defee naafila guddi na yaa ngi ñaar rakk yoo am ñaar rakk yoo am sëlmal <coughs> boo demee ci xóotul xulóob ak ab téere la borom dafay wax ne ñetti téeméeri aya ku ko jàng ci alquran ci guddi mm-hmm. kenn du la limati ci ñu sàggan yi mm-hmm. dégg nga mm-hmm. wasamaayi wattaarixe ba suuf ñetti téeméeri aaya la su nga gaye ba àggal nga naafila sabbihasma rabbikal a'laa ba ci kon kay yow xam nga ñetti téeméeri aaya kenn du la bindati ci xaafiloona yi mën naa am loolu moo tax suñ mag ñi tànn ko ci julli weeru koor mën naa am loola tax waaw ah, mën naa am loola tax mu ne waaye wóoruma loolu laa mën naa am lu la tax mm-hmm. dégg wa qaalat wax na aïsatu aïsa radiallahu anha sayidatuna aïsa nee na maa saada mos da dolli rasulullahi yonente bi yàlla bi fi ramadana ci weeru koor wala fi xayrihi du càggeen lu may weeru koor alas na tey asrata ci ñaara fukk rakaatan ci rakk baxdaha yooyu nekk na ci seen gannaaw al witru witar sayidatuna aïsa mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallama naafila guddim hmm. mos da romb hmm. fukki rakka ak ñett hmm. fukki rakka ak ñaar ak benn bu witar waaye taxawaayee ñoo daan yàgg nag kon ñu jàng lool ba beneen yoon buntu bi jeex na